Sonaged nag nekk société bu bees boo xam ni président de la république daf ko taxawal déggoo ceeg assemblée nationale parce que dafa am benn loi boo xam ni moo taxawal Sonaged ñu indi Sonaged nag ngir mu mën a ñu jàppale Sénégal ci euh, taxawaay bu bees ci anam bi nga xam ni moom la ñuy gérer suñuy mbalit ndax xam ngeen ni Sénégal bi mu sosoo ba tey. li nga xam ni moom la ñu def rek mooy jël mbalit di ko toxal loolu nag président la République amoon ci benn vision ñu tuddee ko programme zéro déchet xëy na nit ñi li ñu ci gën a jàpp mooy set setal yi ak cleaning day yeeg yooyu mais dafa nekk programme boo xam ni stratégie moo ko lal li jiitu ci stratégie bi mooy président de la République dafa wax nañu dugal ay infrastructure de gestion intégrée des déchets loolu président am na ci programme lu deme ni Promojet ak yeneen projet ñi ngi ciy yëngatu beneen bi mooy infrastructure yooyu ma doon wax ñu mën ko tàbbil aussi ci ay usines yoo xam ni mbalit mi fépp fu mu toll rek nañ ci mën a am koom-koom ndax soo seetloo boo nekkee sa biir kër mbalit mi boo ko seggee maanaam li tubaab di wax tri boo ko defee rek moom valeur économique donc loolu si président bëggoon ñu góor góorgóorlu ci ngir ñu mën a ubbi ay usines yoo xam ni xale yi dinañ ci mën a yëngatu leneen li am solo mooy gestion cadre de vie aussi dafa nekk loo xam ni mairie yi ñoo ko yore moo tax président aussi nañu ci biir SONAGED boobu lépp loo leen ci def ngeen lëkkaloo ak mairie yi ak aussi secteur privé muy secteur privé national wala international ñu ànd ceeg ñoom ngir mën taxawal ay infrastructure yoo xam ne bu ëllëgee sénégalais yi dinañ ci gis seen bopp. li waraloon jataay bi tey nag mooy première réunion conseil d' administration bi nga xam ni mooy diriger ngir li nga xam ni moom la ñu def ñu mën ko discuter ñu mën ko valider ba pare ñoom ñu superviser liggéey bi nga xam ni moom la Sonaged di def. dama ciy profité aussi pour jaajëfal agent UCG yi nga xam ni sonn nañ lool ci liggéey bi. te di annoncé aussi loolu mooy sax li nga xam ni jàpp naa ni moo ëpp solo ci man ci ab diir bi nga xam ni moom laa def UCG ba tey ji mooy dañu proposé woon président de la république dafa am 940 agents UCG yoo xam ne ay journaliers la ñu proposé président ñooñu nag nañu fexe ni ñu leen joxee ay contrat à durée déterminée ñu proposé ko ministre bi mu yóbbu ko ci président mu nangul ñu loolu donc famille yooyu incha allah à partir du 1 janvier ci biir Sonaged nañu am contrat à durée mu permettre leen ñu mën a am service médical ak jumtukaay yi nga xam ne yëpp ku am contrat di nga ko mën a am loolu c'est une avancée significative très importante bu weesoo loolu mooy xale yi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi xëyu ndaw yi ndax léegi am nañu presque 14000 agents te 10 000 yi ay agents xëyu ndaw am na ci ñoo xam ne nañu maîtrise ñi am nañu ay licence am ay bac plus 2 donc ñooñu wane nañ ni gëm nañ seen bopp gëm nañ seen réew te li tubaab di wax il n'y a pas de sot ba tax na ñooñu aussi ñi ngi leen di bàyyi xel bu baax euh, moo tax dinañu am direction de ressources humaines boo xam ni dina càmbar loolu yëpp ngir xale yi aussi ñu mën leen teg ci ay yoon li tubaab di wax plan de carrière pour ñu mën a avancer ci biir société bi loolu yëpp day wane ni daal président de la république am na ci xalaat bu yaatu ci gestion des déchets dénk ko ministre Abdoulaye Seydou Sow mu dénk ko conseil d' administration ñu ciy liggéey ngir ñu mën a améliorer profilu Sénégal en tant que pays am nañ ci aussi ay options développement yu am solo yoo xam ni tey nañu am lu tubaab di dàkkantale direction du développement durable nga xam ne dafay mën a yootu ay financement indi ko fii Sénégal ngir ñu mën a diminuer li tubaab di wax euh, empreinte carbon ndax euh, tey jii bu fekkee ne dañu améliorer anam bi nga xam ni moom la ñu gérer suñu déchets yi dinañ ci mën a am sax ay certificat carbone yoo xam ne dina am am am koom boo xam ni SONAGED mën na ko ci am nañ développer aussi activité privée maanaam ñi nga xam ni dañuy produire ay déchets yu importants industriels commerciaux ñu am service commercial boo xam ne daf leen defal ay offre ñuy fay payor boobu aussi ndigal bi nga xam ni moom lañ ci jot mooy ñu réinvestiraat ko ci activité sociale bu UCG ci personnel bi ak ci fonctionnement bu société bi ndax état loolu amulu ko njëriñ état mu ngi investir lu ëpp 30 milliards par année ci gestion de déchets au Sénégal xeeb nañ ko mais aussi lu tëkku la bu ñu xoolee contexte bi ñu nekk ci ci ci Sénégal donc vraiment kontaan nañu trop beneen bi mooy conseil d'administration bi aussi taxawaay bi nga xam ni moom la am tey li ci njëkk mooy mu entériner nomination yi nga xam ni président de la république defal nañu ko dañ ciy profiter aussi pour euh, sant ko ci li mu ñu teg ci position bi muy man muy président conseil d' administration donc ñoom validé nañu loolu ñaareel bi mooy càmbar nañu aussi texte yi nga xam ni moo moo moo wër UC euh, Sonaged moo ko moo ko tënk ñetteel bi mooy dinañu valider li ñuy woowee organigramme maanaam dinañu définir direction yi ñu war a am département yi ak service yi bi ci mujj nag mooy grille de loolu tam am na solo grille de salaire boo xam ni mooy positionner employé yëpp ak employé yu bees yi war a ñëw ci grille de salaire boobu ngir daal ñu mën a am une bonne gestion des des ressources humaines puisqu'on parle quand même de 14000 personnes soxla nañu service médical soxla nañu bien-être soxla nañu gestion de salaire soxla nañu recrutement plan de carrière formation yooyu yëpp daal ay projets yu yaatu la ñoo ngi xalaat sax créer école de formation au métier du nettoiement parce que 14000 xale yooyu war nañ leen xam ne am nañ potentiel pour ñi nekk ay agent de tri ñi nekk ay chimiste donc loolu yëpp ñu ngi koy xalaat mais comme je l'ai dit plus tôt lépp nag ci ñu ngi ko tënk ci conseil d'administration bi nga xam ni moom mooy valider di décider àndandoo ci ak secteur privé national comme international ak aussi collectivité territoriale bi ci mujj mooy bailleur de fonds yi loolu tam am na solo ndax bailleur de fonds yi aussi dañuy dimbali état du Sénégal am na ay projet yu am solo lu mel ni Promojet nga xam ne dañ ci dugal ay financement pour état du Sénégal ngir ñu accélérer rythme bi nga xam ne moom la ñu réaliser infrastructure nañ jàpp daal ni stratégie bi mat na parce que xëy na ay at ci ginnaaw toujours daan na am luy xaw a manqué mais yaakaar nañ ñu ak Sonaged dinañ am li tubaab di wax combinaison gagnante boo xam ne day boole état boole secteur privé local secteur privé international ak collectivité territoriales yi ngir ñu mën a àndandoo mën a gérer ressources. xam nga Cour des comptes c'est une institution qu'on doit protéger donc man rapport Cour des comptes du ma ci def commentaire. li ma ci mën a wax rek mooy ñoom am na ay observation yu ñu def au niveau de la gestion de la TVA à l'UCG ñu defal ñu ci li tubaab di wax recommandation recommandation mooy loo xam ni ñu ngi lay naan lii daal boo ko defoon xëy na dina baax fa la yam li ci am ci ginnaaw yëpp nag xëy na ay interprétation la ki nga xam ni aussi moo ko defoon gise nañu waxtaan nañu sama rakk la vraiment foofu daal laa ci mën a am mais jàpp leen ni UCG c'est une maison de verre amul dara lu ñuy nëbb foofu noo ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah rabbil alamin